est-ce que dooma may sa waay sa waay dafa mel ni yaram yonent bi moom dama lay laaj yonent boobu ngay wax ñu koy fenal deretu yonent bi comme deretu yonent bi la ñu yor dama la bëgg a wax ni la doomu aadama yëpp a bokk benn deret benn deret la ñëpp mu buy deretu maam aadama dañuy waxtaan ci xel dañuy waxtaan ci xel may xel rek laay nangoo ñu waxtaan nangoo ñu waxtaan laay waxe diina rek ñaari mbir laa lay ñaan mooy ne bul ma wàccee su nekkee li may wax bëgg nga ko pour nit ñi ko ñaareel mooy waxal sa nit ñi ne kenn yàlla rek nga ngi dégg da kenn yàlla moom duñ ci génn. Ah, ndax yàlla rek fi nekk ci génn rek ma wàcc la kenn yàlla moom. du ma nangu ku ko laal. léegi moom avocat wu yàlla moom képp ku jullit ku nekk ci nga nekk. kenn yàlla moom képp ku jullit ku nekk ci nga nekk. léegi li may wax mooy ne yow nangu nga ne deret yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mooy daw sa yaram ndax nangu nga ne lépp lu yàlla bind mu ngi bindee ci leer yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yenent bi moo tax yàlla binduñu. waaw. gaw loolu. dama lay laaj. non gaw ma ko dama lay laaj. gaw laaj. waaw ma gaw ma ko. laaj. waaw laaj nga ma tontu naa la gaw ma ko. gaw ma loolu gaw ma ni yenent bee tax yàlla binduñu ñun. doomu aadama. déedéet man dama laaj mooy ne. li ma laa laaj mooy ne ndax nangu nga ne lépp lu yàlla bind mu ngi ko bind ci leer Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dama ni la ni la yàlla ba muy bind doomu aadama yi daal yonent bi rek ay leer mooy leer non mooy la mais lan mooy leer leer boobu mooy la yonent bi nga may wax wala leer lan mooy leer waaye dama ni la yàlla ba mu ñuy bind ñun doomu aadama yi amul benn yonent bu tax yàlla ci boppam moo ko bëgg yàlla moo bëgg a tabax yàlla moo bëgg a sàkk doomu aadama mais waxul fenn yonent bee tax na sàkk leen waaye li ne nañ mi li nga noonu gaw ko waaw dama ko gëmul may trente secondes mu wax ñu li muy yor nii fu mu wax noonu man gaw ma ko bind ñu bind ñu waa Cheikh yow li nga wax nii fu mu fu fu mu ne ci alxuraan li nga wax ni yonent bi wax ñu fu mu nekk. waaw. Ah. li nga wax ni yonent bi moom moo tax. bi ñu war a war a. ñaareel bi jëmal ci ngaa dem ci ñaareel bi. la yàlla ne yonent bee tax ma sàkk leen. ci leeru yonent lay waxaat yow yow noppi Modou lay waxaat. non yow non yow defal sa caméra bi ak sa téere yooyu nga ah, génne. da ngay sa téere nga teg loolu nga war ñi fu mu nekk. Modou yow da ngaa xam-xam. bàyyi ko man rek ma dégloo rek danañ Ah, waaw ma ne danañ danañ nga taaloon sa caméra taalal caméra bi ñu xool la ñu xool say bët xam man yaa ngi samay bët taalal ma jàkkaarloo yow nga wax sa wax yi Modou taalal man soo ma dégloo rek soo ma dégloo rek yow yow yow mi wax noonu yow ma yow mi wax yow yow mi wax na nu waxaguma yow man bul waxal ak man bul waxal maa lay déglu léegi li may laaj li ma lay laaj mooy ne li ma man xulowuma te wallahi duma xuloo te boo bàyyi xel ni ñuy waxtaanee boo ma boo ma rek njëriñ dana feeñ te danañ xam fu dëgg nekk yaa ngi dégg laaj naa la ndax gëm nga ne lépp lu yàlla bind mu ko bindee ci leer yent yàlla ax sallallahu alayhi wa sallam ndax loolu gëm nga ko wala gëmuloo ko soo soo tontoo rek continuer benn moo rek laa bëgg waaw wala déet man ko li ma gëm mooy yàlla moom lan daf moo moo daf ñoo namb bind bu binduñu point gëw ma ne nit moo tax yàlla di bind nit jeex na ok <coughs> am naa xel loolu ma jox ndax ñun ma war a fen waaye waaw déedéet déedéet ndax ñu jullit ñi ndax am nañ droit pour topp waxe yéen yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wala wax amuñ ko waaw bien sûr bu baax sax bu baax ndax yéen boobu ndax lépp lu ñu wax ndax war nañ ko gëm wala waruñ koo gëm déedéet lépp lu ñu wax ne yonent bee ko wax waruñu ko gëm loo xam ne yonent bee ko wax waruñ koo gom noo koy xamee wa ma ataakum rasula fa xuzuhu wa maa nahaakum anhu fantahu waaw mooy lan ay alquran la waaw firi ko waaw lu tax nag aay bi nag bàyyi nag aay léegi firil aay bi waaw léegi firil aay bi maa ngi lay déglu firi ko su ko ko bàyyi muy jaxase nit ñi dafa nag aay bi baal aay ngay nag bàyyi ko bu firi rek même même même boo daggee aay boo firi mën na nag aay bi wala noonu la wala du noonu boo daggee aay de yow Pape mi maa ngi ñëw ci yow yow Mouhamed bàyyil di sosal yàlla bàyyil di sosal yàlla ba nga sosal yàlla da ngay dagg aay te yàlla ne képp kuy saase kuy dagg kuy dogo dogo tey doo ko rëcc léegi lu muy wax waxal lu muy wax waxal lu yàlla di wax foofu lépp lu leen lépp lu leen yàlla na ngeen ko jël da ngay loolu yàlla waxul loolu yàlla waxul loolu loolu mi ngi nekk waxul lu mu wax kon ñi gars yi dañuy làmbatu rek la ma yaa xaaral rek xaaral rek Cheikh ah? taxawal da ngaa da ngaa waxal yàlla loo xam ne yaa xaaral noppil da ngaa waxal yàlla loo xam ne waxu ko baa ma leeral ko da ngaa waxal yàlla lu mu waxul xaaral nekk na royukaay bu rafet ci yéen ndax yéen bi ko war nañ koo roy ndax war nañ koo bi sëñ bi loolu loolu nga noonu ñëpp ko xam gis nga man yonent bi mënoo ma cee waar waar waar xolal mënoo ba ma xam nga la moo tax mënoo ma cee waar. dëgg yàlla léegi. xam nga lan moo tax mënoo maa jàngal yonent bi man ñeenti at moo ma dese pour ma am 63 ans te jàpp naa ni man ñeenti at ma damay dee comme yonent bi. pare naa pour wan na ni maa la gën a sës ci yonant bi maa la gën a yegg. billaahi wallaahi tallaahi ah. waajal naa sama bopp pour faatu 63 ans. loolu moom kon xam nga ne yow munoo maa munoo maa wax dara lu ma yéem ci yonent bi wala di ma wan ni yaa ma gën a bëgg yonent wala yaa ma gën a déedéet foofu moom amul kenn ku ma. xanaa da ngay xaru xanaa kon da ngay xaru. Moodu Moodu kii dafa am loo xam ne dafa am loo xam ne da leen a mën gaa yi quoi dama ko bëgg dama ko bëgg a leeral Cheikh doo noppi ma yeggale ko ak seen mbaxana yu rëy ay kaalo yu rëy grand bubu teg ay alxuraan wax leen li yàlla wax leen di wax li yàlla wax moo gën moo gën Cheikh lu tax yow waxoolu yàlla wax lu tax ngay sosal yàlla ñëw ngeen leen di wax ay façon ah, wax lu tax ngay sosal lu tax nangu woo noppi lu tax nangu woo noppi ma leeral ko parce que xam nga li ngay wax du dëgg lu tax nangu woo noppi ma leeral ko mooy li ngay wax du dëgg eh. non dama ne la li ngay wax lu tax nangu woo ma yeggale ko lu tax nangu ma leeral wax ji parce que li ngay wax du dëgg na ngeen nangu fi dara dëggoo li ma la ne la yonent boobu ngay wax sallallahu alayhi wa li ma ci ñeme ñeme woo ko ci ñeme wax ba ñu tiit ñun yàlla loolu yàlla tiituñu ko yàlla sax sax ko dangaa dëkk ñu aay yàlla dangaa dëkk ñu aay yàlla teg seen di saar di tari ñu leen di jox xaalis ngeen di dunde yonent dem leen ngeen liggéey yi ngeen dem ngeen liggéey yi yor kurus du liggéey yor kurus bu liggéey yor kurus yor kurus ni topp la ngay tari ay taal ngay jox xaalis on avance waay di ko def benn waay noonu Muhammadun basharun laa kal bashar Muhammad min na mani xoolal waaye nekkul sëriñ bi xam nga lan laa la bëgg xamal lii ngeen di dundee lii ngeen di dundee dama ne la lii ngeen di dundee doxalul Sénégal li ngeen di dundee nii doxalul Sénégal de ku nekk sol sa kaala rek yor bi ay kurus di weddi taxul Sénégal avancé fii gis nañ fi élection yi bi mu ñëwee junni sëriñ ku nekk taxaw waat ci yàlla teg kaamil ni billaahi wallaahi tallaahi diw mooy gañe mooy nekk président ba pré élection yi ñëwee mu fen ba wëlbatiku kooku dafa war a xam ki teg alxuraan waat mooy gañe waat ci yàlla diw ñëw perte kooku normalement bu dee góor dafa war a xaru lu toll ni yàlla nga waat ci moom ba pare di fen ba pare wëlbatiku nit ñi di la tegaat bët ngay dox ci kaw suuf te ñooñu ñoo la gën a wax ni waaye yonent mooy lii yonent bi sallallahu alayhi wasallam ba pare di waat ci yàlla di fen ñun Sénégal yëpp gis nañu élection yi bi mu ñëwee ñaata sëriñ lañu teg kamera ñu waat ni diw mooy gañe ba diw ñëwee perte ñaata pourtant ñoom ñi ngi dundu ba léegi kon ñu leen di continuer di leen teg caméra ñuy wax sénégalais yi topp seen ginnaaw ñu leen di nax ñooñu ñoo topp sëriñ yooyu yëpp ay bokkaalekat lañu. parce que sëriñ la sëriñ biy toog di wax suba lii mooy am bokkaalekat la ku koy seeti mu lay wax lii am suba bokkaalekat nga. développement amul benn président ci monde bu ko mën a defar bu fekkee mentalité bii ngeen yor. naxaate bi tant que jógul Sénégal Mali sax du ngeen dem président yi nekk ci àddina bi yëpp bu leen dajale woon indi leen Sénégal fii du tax Sénégal bañ a ndax nit ñi ñoo pauvre ci seen xel yi nit ñi ñoo bàyyi yàlla teg ko fële kennal yàlla amu fi bokkaale kese loo wax ñu tuddi nit teg ci ko wetam continuer leen ana Sénégal vingt quatrième pays le plus pauvre au monde ñoo fi ëpp sëriñ ñoo fi dàq wàcc kaamil mais est-ce que li ñuy def dëgg la est-ce que yàlla bu doon bu doon dëgg su dëgg dëgg dëgg yàlla du ko nangu li ñuy woote nii li ñuy li ñuy dunde li ñuy wane nit ñi di ko gis est-ce que loolu yàlla ànd na ci kenn nañu yàlla Modou Modou ngir yàlla doo may ma ma leeral kii aay ba mu fi génnee waaw demal demal demal damay tàng xam nga bu ñu tuddee yàlla damay tàng. ngeen baal wax yàlla loo xam ne. yàlla wax maanaam li gën a bon mooy ngay. ngay sosal yàlla may ma ngir yàlla Adama. Adama may ma yeggale rek ma jox la benn aaya bi rek laay wax ma ma jox la yàlla dafa wax ni ñi nga xam dañuy détourné aayaam yi duñ ko rëcc loolu mi ngi koy wax surat 41 verset 40 mooy surat Fusilat kii nag li muy wax aay bi mu wax léegi nii mi ngi nekk surat 59 verset 7 yàlla ci butin de guerre lay wax ku dem ci verset 7 bi loolu nga fay fekk yàlla di wax ni butin de guerre bi yonent bi mu yàlla moo ko moom ak ak ndawam ak ñi nga xam ne mooy doxandeem yi jirim yi pour bañ alal jooju di dox ci ñi nga xam ne ñoom ñooy notable yi ci dëkk bi alal jooju yonent maanaam ndaw li lu mu leen ci jox jël leen lu mu leen ci tere ba terewu leen ko loolu la yàlla di wax waxul ci diine ci butin de guerre lay wax ku dem ci surat 59 verset 7 loolu nga fay fekk bàyyi leen di waxal yàlla lu mu waxul di fenal yàlla xam nga li man li may wax lu leer nag nit ku lay wax jox la référence nga demal xool yi demal nga xoolal sa bopp xanaa loolu yomb na ma li may wax sama borom la jógee yàlla mooy laaj ci suratul Muhammad surat 49 verset 14 mu ne ki nga xam ne li muy layee ci borom lay jógee est ce que kooku mun nga koo méngale ki nga xam ne li muy wax ci bànneexu bakkanam la ko la ko teg te xalaatul dajeeg ñun suba ñii li ñuy wax comme ni ko Modou Gueye di waxee rek wut xaalis moo leen ci tax a jóg wut xaalis ku dem nga dem xooli verset yi ma la jox nga xool ba xam looloo fa nekk wala nekku fa li may wax kay leer na képp ku yéeg boo fi amee looy saxal di wax ne yàllaa ko wax waxal fu mu nekk loolu kay yomb na li mu wax verset sept la ci surat cinquante neuf dem leen ngeen xool ko li mu wax muy dëgg wala li mu wax muy dëgg loolu kay yomb naa xam. c'est clair. tubaab. Ah, américain chinois japonais arabe lépp boo leen waxee dara dañ naan la fan la ana preuve bi waaw ah, léegi lu tax sénégalais du laaj preuve lan moo tax sénégalais loo ko wax rek mu ne. dëgg la kii de lu mu la wax dëgg la. Ah, ana preuve bi. bu leen si cadre ma ay tubaab ay politique. non dama ni la tubaab soo ko waxee dara. chinois boo ko waxee dara. indien boo ko waxee dara. ñooñu xam ne ñoo xam li yàlla wax. muy liggéey ñooñu soo leen di wax dara dañu naan ana preuve bi li ngay wax nii foo ko teg. waaw li nga wax li nga wax preuve ñu ne ah d'accord. li nga wax soo ñu jël seen bagage dem. yow. borom borom photo Ousmane Sonko bi def profil man xam lu ma lay laaj. ñaa ñaat ñaata julli moo am ñaata julli moo am. yow loolu rek su ma la waxee ñaata julli moo am yow sa téere yi nga gëm di ma ci wax ñaata julli moo am fu mu nekk moo lay waxee samay référence yow di nga ma wax say bos. boo d'accord ñu dem ci loolu. léegi nag nga may laaj ci julli. dama laaj ba xam julli Seydina Mohamed am na wala awul julli Seydina Mohamed dama ne la rek yow tàmbalee foofu julli ngay wax ci ay fa ñëwaat ci ay Seydina Mohamed benn wax ñu avancé da nga ne julli ay preuve non man dama lay wax benn boobu laa lay laaj ba xam am na wala amul am na wala amul am na wala amul julli ban yow bis yow li nga bëgg li nga saxal wax ko li nga bëgg a saxal wax ko su amee ci alxuraan ma ne moo fa nekk su fa amul ma ne loolu nekku fa dama ne ndax loolu am na wala amul am na wala amul. julli lan man loolu laay laaj am na wala amul. waaw wala déet yow yaay wax waaw wala nga ne déet. waa léegi laajaatal laaj bi ni li nga bëgg saxal wax ma lan la nee ma lii laa bëgg a saxal bu nekkee ci diine ma ne li nga ba ci nekkul nga. déglu ma dafa ne la julli si Seydina Mohamed déglu ma déglu ma julli si Seydina Mohamed am na wala amul man question boobu rek laa laaj danga naan waaw wala nga ne déet. julli ci Seydina Mohamed waaye julli ci Seydina Mohamed am na. jullit ci Seydina Muhammad jullit ci Seydina Muhammad jullit ci Seydina Muhammad amul ci alxuraan jullit ci Seydina Muhammad jullit ci Seydina Muhammad amul ci alxuraan jullit ci Seydina Muhammad comme yow ni nga ko waxee loolu amul ci alxuraan jullit ci Seydina Muhammad comme ni nga ko waxee bu amee wax ñu fu ñu nekk aay bi wax ko ñu dégg très bien léegi bu ñu nee yàlla nee na jullit ci Seydina Muhammad ak ay ñoom yéen ñi ko wax ci alxuraan bu fekkee da ngeen ko wax am preuve génneel preuve bi bu ko yàlla waxee dëgg la su ko waxul du dëgg loolu laa leen di bëgg a wax nii julli ci yonent bi su ngeen ko génnee ci alxuraan dëgg la su ngeen ko génnewul ci alxuraan du dëgg point alxuraan rek dew ma xadis de génneel loolu ci alxuraan euh, yow man damaa yow damaa xamul yow ban façon aro maa ngi jégalu mais génne ko ci alxuraan non non déedéet boo leen nekk fi ne ay Seydina Mohamed Seydina Mohamed laa la wax yàlla lu mu sàkk lu mu sàkk si leeram la ko sàkkee bu leen nekk fi di. yàlla si bopp mu julli si Seydina Mohamed. fu ko yàlla wax fu yàlla wax may. waaw même léegi d'accord léegi ñun xamuñu dañoo bëgg a xam sëriñ bi ngir yàlla doo ñu won fan la ko yàlla bind ñu jàng ko. waaye dimbale leen moom yow Modou Gueye yow ki ne ki nekk borom whatsapp bi ki kii def photo Ousmane Sonko moo lay jàpp. yow léegi yow ah, xamoo si dara. xaw ma man ban façon. Adama booy booy laaj li ngay laaj yow da nga koy xam boo ko xamul bul ko laaj. <laughs> Euh, Modou. moom li mu bëgg wax. li mu bëgg du benn. jullit boo teg ni ko xamuma dama la ñaan ngir yàlla wan ma fan nekk ma dem jàngi nga daal di mer génn wàcc. kon sëñ bi waxoo fi dara. xam nga moom xam nga dafa ñëw pour weddi rek te amul fu mu sukkandiku. xam nga bu ñu demee sura 33 verset 56 yàlla foofu lay wax inna allaha wal malaikatahu yusalluuna ala nabi ya ayyuha allazina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima boo ñëwee pour weddi di indi aaya da xam li ngay wax fu mu ne mais bul ñëw pour weddi pour bëgg a weddi rek. mais foofu la moom moom moom ni mu moom ni mu posé question bi. loolu amul dëgg su yonent waxul du dëgg man dafa laa ko téye waaye yàlla wax lii wan ma fu mu ko wax rek bu dee dëgg ma ni dëgg la yonent moo wax lii ana fu mu ko wax bu buñ ko génnee ma ni dëgg la waa léegi man est-ce que man nit ni man la war a def wala warul def ko man. xam nga Modou ñu seen problème fu mu nekk xam nga julli maanaam yàlla bu ne bu ne bu ne bu ne sallu xam nga dafa am ñoo xam ne loo xam ne ñoom bàyyiwuñ ko salaat li muy li muy tekki salaat mooy jokk loolu lay tekki ci boppam même yàlla bu ñuy wax su salaat loolu lay signifié ñoom nag leen neex lañ ko bëgg firee mooy maanaam sa julli. mooy dem di julli ci yonent bi léegi ñoom laaj leen ñoom li ñuy jullee ci yonent bi ñoom lan la wax ñoom bu ñuy julli lu ñuy def bu ñuy julli ci yonent bi lu ñuy def pourtant ñoom dañuy dem bu ñuy julli yonent bi dañ naan yàlla de julli ci yonent bi maanaam yàlla li mu leen sant ñoom loolu la def laaj leen ñoom bu ñuy julli ci yonent bi lu ñuy def pour leen ñoom ci li ñuy def sax xamuñu fu mu jógee maanaam dañuy topp réer boo xam ne xamuñu amul bopp amul genn yàlla dafa ne yàlla ay malaakam jokku nañ ci ci maanaam ci ndawam mu ne ñi nga xam ne yéen ñi nga xam ne yéen ñi gëm jokk leen ci ndaw li ndax yàlla dafa ne ndaw li lenn moo ko war mooy jottali gu leer donc yàlla moom moom moo jokk ci yonent bi pour mu jottali ñu ñun buñ jot jokkoo ci yonent bi yonent bi jottali ñu liñ ko jot liñ ko jox mu jottali ñu ko hmm. problème bi jafewul mais ñoom ñoo bëgg a nit ñi di dugg ci ay gaam yoo xam ne amul bopp amul génn boo leen tey ñoom nan la ñuy ci yonent bi ñoom li leen yàlla def loo ñoom loolu la ñuy def la ñuy wax yàlla def ko dañ naan yàlla loolu def ko loolu la ñuy wax ci arab ñoom dañ naan yàlla mi ngi julli ci yonent bi donc ñun euh, yéen ñi gëm julli ci yonent bi ñoom loolu la ñuy wax loolu la ñuy tari donc ñoom leen yàlla wax defuñu ko. xam nga dafa am lu xew mooy gis nga ñun suñu culture bi ni ñuy toppee waxu doomu aadama bàyyi waxu yàlla moo law ba ci suñu biir dugg ci biir Sénégal bu mënuñoo booloo def dara def dara dëkk bi ni mu pauvre gis ngeen fan yi démb. stade Demba Diop stade nu mu euh, Léopold Sédar Senghor dañ leen yëkkati. salaamaaleykum dañ leen yëkkati ña nga baare dëkk ña nga commencé baare booy yi nañu génn di yàq dëkk bi di commencé di waat di def comme la fi njëkkoon a am. salaamaaleykum. waaleykum salaam. gis nga dëkk loolu ziar naa bu baax. delloo ziar sëñ bi dëkk ma ñëw gis nga dëkk. président boo mën a faral ak lu mën a xew intérêt général moo war a jiitu man mën naa fal nit waaye am na loo xam ni su ma ko tegul ci yoon mais ki nga fal bu ñëwee ni la ki nga nekk nii baaxul jógal man damaa war a jóg pour jàppale ki ma fal mu réussir boo falee nit kay bëgg mu réussir yow nekkoo woon ci yoon wala yow dafa am foo xam ne yaa ngi yàq wala xëy na da ngay naan ndéggandiku te fi nga nekk moomoo ko yow danga war a def tuuba ki nga sànni loon sa kart nga fexe tuubu bañ a am gàcce yow yaa war a njëkk a daw nag bale sa mbedd ni diw de maa ko fal amoon nañu ko falul amoon ñu ko compte comme maa ko fal léegi nañu xoolaat rek suñu taxawaay nañ ko jàppale mu réussir sinon dañuy am gàcce de. mais on a vu commencé waat nañu jóge leen fii fii baaxul fii baaxul ñu commencé waat yàqaat nar a taalaat dëkk bi te dañoo sonn bi affaire bi jàllee maa ngi commencé waat di relancer ma ne association bi ma créer woon nañu fexe ba un million de sénégalais yu ñaar fukki dërëm suñu génnee ku nekk ñaar fukki dërëm xam nga muy cent millions par weer imagine woon léegi bu ñu joxoon ku nekk un ñaar fukki dërëm muy cent millions stade bee booy yi ñu yëkkati mën nañ leen ci jàppale ñu ne ñun sénégalais yi cent millions yi njëkk a génn kat am na coow lu am fële ay sénégalais lañu suñu ay doom lañu nañ jël cent millions yi jël booy yooyu jéem leen di fenn ku nañ ñu jox la deux millions wala ku nañ jox la un million nga daal di commencer am looy def seen mer wàcc ñu mun a préparer tabaski ko pour jaay ak tabaski dañuy yaakaar su beneen mois ñëwee cent millions dugaat ñu jëlaat cent personnes ku ne ñu jox la million nga am ci loo jàpp am ci buñ ko defee un an muy un milliard deux cent millions mille deux cent booy ku nekk am un million am ci loo jàpp dëkk bi tane nit ñi féex nit ñi commencé liggéey mais déedéet kenn ku nekk da ngay toog fi nga toog doo jéem dara su ma joxee ñaar fukk di war ci am un million am liggéey tekki duma ko def sama ñaar fukk ma sànni ko biir géej moo ma gën gënal ma koy joxe nit di ci tekki c'est ça la mentalité loolu ñuy dund nii moo ñu dal ci diine ji dal ñu suñu façon dundin dal ñu ci fépp ñu perte ñun ñëpp man mii di sonn ci lii lan laa ci am lan kan moo ma ciy fay lan laa ci am. bugguma ci payu yàlla bugguma ci dara yàlla yorelu ma dara ba may fay mais dama nekk ci dëkk bi gis samay moroomu doom am vingt ans ba quarante ans seen bët yu xonq xamuñu amuñu fu ñu jëm mu yoruñu un million seen poche ba xalaat ma ni mais ñii dañ ci war a jàpp na si ñëpp jàpp jàpp boo xam ne du doon ñaan du doon tàllal loxo du doon ñàkk fayda tous les Sénégalais nous sommes dix huit millions na un million bi rek joxe ku nekk ñaar fukki dërëm chaque mois c' est cent millions. cent Sénégalais nekk millionnaire. dëkk bi commencé yaraax nit ñi commencé am ci lu ñu jàpp bët yi commencé leeraat sénégalais yëpp sénégalais boo gis dafa war a am compte bancaire un million dugg ci muy dugal di génne mais kenn ku ne da toog fi nga toog depuis un an maa ngi wax. nanguwu ñu joxe ñaar fukki dërëm pour tekki waaye léegi ku bëggul joxe ñaar fukki dërëm pour tekki nan la sa dëkk di baaxee maa ngi waxtaan ak sama benn waay benn benn eh, maa ngi naan ko Paul Kagame bi mu ñëwee Sénégal dañ ko waroon a nappe Paul Kagame président Rwanda bi mu ñëwee Sénégal ñu dañ ko waroon a téye ni ko dimbali ñu nga toog fi ñetti weer wan ñu nan nga defaree Rwanda ba mu dàq France ba mu gën a set ci àddina bi. te pays africain la de am ay guerre ay million nit dee ci dëkk bi yëpp nekk dret léegi dëkk boobu moo gën a set ci Afrique ba gën a set ay dëkk tubaab Rwanda dañu waroon abu président bi ñu téye ko fii ñu ko doo dem ñetti weer foog ñu won woon ñu nan nan nga def ba sa dëkk bi set mu mel ni ñun Sénégalais duñu ay nit lan moo tax ñun sénégalais mënuñu set mënuñu bëgg lu baax mënuñu mënuñu yéeneente jàmm soo amee ñu teg ku nekk cent jox diw un million mu dem subaa keneen def eh, dëkk bi finalement ñëpp am un million ñëpp liggéey mais koo gis xol baa ñu ñuul moo liggéey mi wax ñu ne waaye daf ñu bëgg a triandé daf ñu waaye ëpp ñu xel la moo tax muy xel waaye kii mais lan qu'est-ce que j'y gañ lan laa ci gagne lu dul wax ba sonn dox ci ba sonn joxe samay casier judiciaire dem gendarmerie ñu déglu lépp ma ñëw tegal leen projet bu mel noonu chaque fin du mois cent millionnaire non non wayaan ñaan jooytu xaar yàlla moo leen ko gënal xaar yàlla moo leen ñu continue Maodo jaajëf waaw macha allah wax di rafet na maa ngi nuyu ñëpp maa ngi nuyuwaat ñëpp di rafetlu kàddu yi nga wax macha allah am na njëriñ lool waaye amuñu Kagame mais am nañu Ousmane Sonko ñu Sénégal te jàpp nañ ni. yàlla baax euh, li ngeen wax bu ñu góorgóorloo tuuti mën nañu raw sax Rwanda mais nag il faut autorité yi nga xamante ne ñoom la ñu wóolu ñun ba teg leen fi ñu moom itam patient ñun nu ñuy patient il faut ñu patient patient mooy réew moo fekk mu pëccaxu doy waar mënoo xeex te yow itam rek faagaagal jóg leen fii jóg leen fii loolu dafa laaj tamit procédure tuuti ndax it Sénégal da ay pàcc pàcc am ay feet ay tabaski yu ñuy jublu si am leen lu xew kenn ku nekk am foo ñamoon dafa def fa xale kooku ci benn une semaine wala benn un mois nga parax parax yi jóg leen fii def leen nii day indi pëcc xol yi jóg maanaam il faut def procédure pour jëlee leen fi ñu ne. bokk na ci pour mën leen jëlee fi ñu nekk ba fu ñu occupé woon ñu jege fa nga loolu dama jàpp ne nekkut lu ñu mën a def ci benn fan wala ñaari fan wala une semaine wala un sax mois loolu dañ koy benn di ko bennal di ko bennal nit ki mën na jóg ci mbedd mi saa pour autant nga ne ko jógal sax ci mbedd mi mais day gis loolu lu ko tax mu bàyyi sax mbedd ma maanaam du fa toogati de dana dem ba kenn dootu gis kenn ci mbedd mi mu lal ci voie publique bi parce que gis na lu ko ëppal loolu parce que toog ci naaj bi ci ngelaw li di gagné cinquante franc ah bu gisee benn projet wala benn usine wala benn loo xamante ne mu ngi gagné foofu deux cent franc doo doo gis ci bedd bi kon doo ko yëkkati moom moo yëkkati boppam kon boo jëlee réew mi bëgg a defar ndaw ñi am ci yow yaakaar damaa jàpp pour nga xëy xëy rek ne léegi dëkk bi daa war a set tey ci benn weer te bi nga fi toogee matu deux mois day indi pëccuxoo man loolu laa jàpp man dama jàpp ne dañ ko waroon togg muy ñor comme ni ñu patienté nii ci wàllu justice bi ak yeneen xeetu liggéey ci wàllu yëkkati ndaw ñi maanaam euh, voie publique yi ñu occupé te du yoon ñu def ko ndànk procédure par benn par benn gooto gooto bu lépp dana mel ni Rwanda ndax Rwanda tamit Kagame ñëwut ci benn weer benn un mois mu def loolu de procédure la ko topp daf ko topp benn par benn gooto goto lu nemu dindi ko ba dindi jote tegal nit ñu lu leer yëkkati leen ñu dem cat leneen teg ca waaye nag boo fekkee benn jeunesse bu nombre nga xam ne village village la jógee village a mbéy la yaakaaroon mbéy mag état yàq na ko faaletul ko mu yaakaar càmm mu yàq càmm ga mu yaakaar napp mu jay géej gi am te war na lekk war na dund war na dund ay waajuram mu daw ñëw Dakar bu ñëwee Dakar amul diplôme amul métier li mu def mooy li daaba boppam nombre googu ñu nombre Dakar kër yi amul teyaas Dakar fees dell oto yi fees nit ñi fees ñëpp buñ ñu xëyee Dakar lañ jublu. loolu lépp état da cee war a xalaat lan moo comment lan moo tax nit ñëpp buubu ñëw Dakar parce que bàyyi waajur bàyyi jabar bàyyi doom Saalum. léegi ma laaj la Kajoor ma laaj la benn bàyyi Saalum bàyyi Kajoor bàyyi ñooñ léew la lépp groupe boo ñëw erreur kan la. erreur kii la kan mooy responsable bi état bi la. responsable mën naa ko citer deux personnes sama juumut. Hmm, ayca. état am na ci wàll waajur am na ci wàll. lu tax mënoo ñaar yooyu moo tax mënoo njëkkee waajur ba pare doog a wax état. le premier responsable le premier responsable waajur la. deuxième responsable. am na deuxième. deuxième responsable. tu sais quand tu de l' état sooy wax état da ngay da ngeen defe ni état mooy président ministre état mooy ñun ñii ñëpp ñun ñii ñëpp état la. waaw mais dañu am ku ñu yëkkati rek dina nekkal suñu kanam. est que est-ce que man Modou Gueye li ma war a def ci tali bi maa ngi koy respecté est-ce que man Modou Gueye dinaa yéen benn bis bale sama quartier jaral ma ñu bañ maa fay dërëm ma jël xëy jël sama sama quartier ni sama quartier bi sama mbedd dafa war a set bale mbedd bi ni ci dëkk bi laa bokk xaaruma kenn dama fee juddoo dëkk bi dama ci war a participer damay yeew bale sama mbedd. d'accord man yenn saa damay yeew. sol sama yëre yu weex yi bale ba mu tilim ba sama yëre tilim parce que sama bokk ci dëkk bi su ma balee ba pare di sanguwaat changer dëkk bi jaral na ma ko mais quand on à développement bu ñu bëggee développer bu ñu bëggee sénégalais yëpp nuroog nit njaay bët yu xonq yëpp dañ poussière bi dañ pënd yi dañ ñun ñoo yeew groupe booy bu nekk ñi suñu quartier day set yoruñu xaal yoruñu dara mais set moom dañuy noyyi air pur par force suñ ko defee weer quartier boo dugg day set ñu doog nag xool nag lan la ñuy def ba financement am nan la ñu mën a def ba bokk su kenn ku nekk def dara chaque weer cent million dugg cent booy nekk millionnaire. pourtant li ma wax nii ñaar fukki dërëm par weer bi ku ko amul. léegi may ma laaj la foofu. kan moo ko amul. <laughs> waaw léegi dama laaj foofu tuuti ki nga xamante ne bi mu yeewoo amul lu mu nekkee waaw. kookoo tax yaakaaru lu mu añee kookoo tax waaye bu yaakaaru lu mu añee yaakaaru lu mu reer moom waxi noppi waaw kooku boo ko ne xëyal sa ko ñu set est-ce que déglu da leen déglu sax yow du leen sa déglu ki nga xam ne bi mu yeewoo mburu bu fukki dërëm mënu ko am mu añee moom waxaale ko da koy mbëbësal ndax kooku kooku moo duggee yow bu nga yeewoo sama koñ na set waa léegi kooku mu boole kook fu set wala mu boole kook fu tilim bu gën non biir bu xëyee laaj ku lu laaj da ngay si ñàkk déglu ma rek loolu yëpp dal la nga boole ko di tëdd fu salte fu tilim ak boole ko di tëdd fu set bu gën pourquoi chaque fois ngeen bëgg polémique chaque fois ngeen bëgg dañoo amul lu ñu ndékki amul lu ñu lu ñu lekk amuñu ku ñu jàppale mais yàlla du wàcc sëriñ bi yaa sëriñ bi yàlla du wàcc léegi yow kooku la nga da ngaa bëgg jomaay fekk fa mu tëdd jox ko mburóom ndékki kon da ngaa jàpp yàlla daa yéeg bay wàcc kon <laughs> yàlla du wàcc fu wàcc jëm fu jëm da di xaar yàlla bi loolu yàlla du wàcc xanaa yàlla ci kaw la nekkoon. <laughs> yàlla ngi ci kaw kay. yàlla ngi ci kaw kay. yàlla ngi ci kaw waaw. néew ci suuf kon. déedéet. fan la nekk ci suuf. yàlla ci kaw la nekk. huitième asamaan. huitième asamaan. <laughs> ah yàlla xëj na ci kaw asamaan. waaw te mu amal ko. waaw te mu amal ko. waaw. Ah. bàyyi ci suuf mais ci kaw bàyyi ci suuf. bu ko nee yàlla bu ko neexee sa xat ci verre bi. <laughs> yow nga ne yàlla la gën a jege sa bu mu xool nga ne yàlla ngi ci kaw. waaw dégg nga loolu yow. aywa ah, kon eh, yow xamoo ko yàlla doo doo eh, yàlla mën naa nekk araf mën naa nekk araf gën maa jege sama buubu ko yow si sama waay. kon kay nekkul ci araf mu ngi si yow. Ah, dama ni yàlla mu ngi si yow yow. dama ni dama ni dama ni. dama ni te yéen yonent bi dafa yéeg kon fan la doon yéeg bu fekkee yàllaa ngi ci suuf kon la yonent yéen ñi ne yonent bi daa daa yéeg kon lu muy yéeg ku muy seeti fu yéeg ci kaw. yow ban yéeg lañ la wax. waa yéegu yéegu historien yi bi ngay dégg. yéen daal yéen toog ci télé yi yéen jàngkat yi ak xibaar yeneen bi ba mu ràññaanee yéeg tey yàlla jàkkaarloog yàlla aj àjjana ni mu rafete a ah, àddina bi de gisuñu fi àjjana gisuñu fi yàlla fii da nga ko fay romb li nga xam ne li nga xam yëpp dégg-dégg la laaj gis nga ne wax ni heureusement maanaam yow nettali bi nettali bi ngay rek yéeg yaakaar dafa dem asamaan dama ni yéeg dafa xottu asamaan juróom-ñaari asamaan déglu ma wax la dama ni la déglu ma wax la dama ni ak loolu dama ni la man moom yàlla moom wóor na man li may fanaan ci yàlla yow doo ko fanaan ci yàlla. li ma fanaan yàlla. li ma jaral yàlla mooy fanaan man kay du may fanaan ci yàlla moom mooy fanaan ci man. sëriñ bi on parle de développement. soo amee idée soo amee idée te bàyyi wax ku yeewu amoo loo lekk amoo loo naan ku am 30 ans xëy amoon ndekki amoo loo lekk amoo naan mais danga ñàkk jom. da ñàkk jom. d'accord. waaw ah d'accord nga. d'accord nga ko am trente ans amoo loo ndékkee amoo loo añee amoo ndox moo naan ña da nga ñàkk jom dara jotul d'accord naa yow laaj ma foo ko teg léegi na xam la moo tax wax la ko waaw ki nga xamante ne am na trente amoo lekk am da nga da nga ñàkk jom ñàkk jom boobu ngay bañ te amoo loo def moo tax nga dem lal ca stade wala nga nekk mécanicien ca stade bi jëlee la fa waaw te amoo beneen pexe léegi boo nekkee ñàkk a ñàkk jom bañ a ñàkk jom boobu nga wax non non non non bañ a ñàkk jom moo tax yow nga dem stade ba bañ a ñàkk jom si bokk non bañ a ñàkk jom taxul nga tegu nga dem ci booru tali bi di ko fa teg déedéet pourquoi nga koy teg ci booru tali tali bi ñëpp ko moom. dañu waxante dëgg rek. d'accord waaye est-ce que yow est-ce que moom jàpp nga ne bu fekkoon mais bi mu ñëwee fekk na ñu benn espace boo xamante ne tey du tali ñu programme ko ngir loolu dana ko fa bàyyi dem ci tali ba est-ce que yaakaar nga loolu. loolu moo matewul. bi Sénégal c'est un pays pauvre. mënuñoo def mbedd bu nekk ñu def fa la mat père de famille dañu war a jël seen responsabilité ba amee benn doom balaa ngay def ñaari doom nga xam ndax benn bi di nga ko am dina am liggéey nga bañ a def ñaari doom bañ def ñetti doom topp oustage yu naan leen waaw jullit day njaboot jullit day am ay soxna yu bari jullit dañ ko war a laaj foo aaya tey loolu moo doxal àddina loolu moo doxal àddina chinois yi noonu la def japonais yi noonu la def américains yi la ñuy tuddee français yi noonu la ñuy tuddee dañuy yokk xeet waaw nit dañ la war a laaj foo aaya tey nga daal di yëngal say mbag maa ngi aaya Mermoz suba ginnaaw suba kii maa ngi aaya Caaroy ginnaaw waati France mais yëfu dof yooyu ñu war a bàyyi moo duggee am na ku yor benn doom donc ñaari doom donc ñu tëkk ficc am ku yor fukki doom ak ñeent ñëpp mu teg leen ci bonne condition moo la ko wax xanaa un zéro virgule un zéro man dama ko gis waaw tu me parles d'exception tu me parles d'exception. non c'est pas d'exception. si. këri Ndakaaru yi fii ñuy luwee fii nii fu ñu dëkk nii li ci ëpp euh, borom ñeenti jabar ñeenti jabar ñoom moom ñoom moom kër yi. locataire yi li ci ëpp. kan moo la ko wax kër yi li ngay wax nii am na ci preuve. yow Sénégal gi Sénégal gi saa yoo yeewoo yaa ngi gis. Dakar fi gën a tuuti de. boo duggee ci boo duggee ci man li ëpp ci li ma gis. soo duggee ci banlieue yi kër goo dugg am na dix personne ñëpp pauvre. waaye sëñ bi nañu waxante dëgg waaye ak na keneen yëg waaw baax na <laughs> l'an trois mille l'an quatre mille cinq cent sax Sénégal nii lay mel à cause de ces mentalités là léegi loolu wax ci état yow nan la war a defaree pour boo yëkkati lu muy def nii teel na wala jot na wala noo yaakaar état mais amul jot na lii dafa war a lii dañ ko waroon weesu bu yàgg nit ku nekk yaa war a xam fa ngay taxaw léegi weesu wuñ ko nag ba nii nii nii nii est-ce que ko def benn par benn. Rwanda bi ñoo wax noonu. nañu def